Bismillahirrahmanirrahim. barke borom Touba alaykum mbokki tel bi mbokki murit yeb mbokki Baay fa yeb ñu fas yeene ñew ak yeen ci yëgle ak fatali bis nga xam ñoo nek suñu kanam fi ci dekk bu tedd bi Touba xarsan allah taala insha allah rabbi altine moy ngontub serign fallu mbake ci bërepp bi waye it altine Baye Moustapha jaar jaal jaalbatu maraaxib da am ab ngont fe ci bërepp serign Serigne bi insha allah momit ci lañ koy def altine bi talata bi. mooy talaay tay soxna maam Asta Waalo Mbàkke ak soxna Jaara Buso bi nga xamante ni moom la sëriñ Madieye Wade def ci bërëb sëriñ Saari Mbàkke bi àllarba bi ku ne xam na ko mooy bërëb sëriñ Saari Mbàkke bi ànd kook sëñ Mbay Dem incha allahu rabbi alxamis bi mooy nag bi nga xamante ni moom la ñuy jagleel borom Touba fii ci bërëbam bi incha allah moom it ànd kook mbokki taalibe yëpp rawatina ak sëriñ Malick ak sëriñ Eh, ma mbay Badiane ak mbokki taalibe yi sëñ Moustapha Dieye bi ajuma bi ku ne xam na ni moom la ñuy eh, jagleel eh, ñi nga xamante ñooy waaye dawlu yi incha allah rabbi di ko amale fii ci urum bi waaye it altine waa kuréel Jaalibatul Maraaxib bi nga xamante ni ñoo koy amal ci ñeenteelu ajuma bi fii ci bërëb bi ñu ngi koy defalee fii ci jullikaay bi incha allah muy kuréelu 313 Jaalibatul Maraaxib bi koy ñaanale way daw yi ñu ci soññe di ci woo mbokki taalibe yëpp boobu moom ñu koy amal fii ci bërëb jullikaay it bi incha allah rabbi samedi bi ku ne xam na ni mooy euh, bërëb maam Cheikh Ibrahima Fall ci ngont mi waaye di base bi ku ne xam na ni mooy kër Soxna Astou Gawane Mbacké nday jànkatu xase yi nday murit yi incha allah foofu tam ci kër Soxna Astou Gawane na amit ngont bu ñuy def fii ci xamante ni mooy bërëb Sëñ Saaliw muy ngonte nuuru daay ànd koog bàyyi nuuru Jóob kon nag mbokki taalibe bi xew-xew yooyu ñu ngi koy woo di ko fàttali ñëpp sëriñ Moustapha Diop Maraxib tamit moo ngi fàttali li nga xamante ni mooy siyaaru njaañ bi ñu koy fas yéene amal àjjuma ci juróomi fan ci weeru juillet incha allah rabbi départ fii ci maanaam tokkoor Serigne Cheikh bi incha allah bu 9 jotee. ku bëgg a dem nag mun ngaa gànnaawee mille cinq cent boo ñëwee ci la ñuy def tontu bi ak lépp loo xam moo jëm ci wàllu bernde yi ak toppatoo yi nga xamante moo war ci liggéey bi incha allah rabbi kon yooyu ñooy bis yi nga xamante ni jàpp nañ leen bëgg leen yëgal mbokki taal bi ak di ko fàtte yàlla nañ ko ànd te am ci ndam ak ngërëmal Cheikhul Khadim di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf